đi chết đi chưa đâu đâu con đi người chơi đi phi hoài luôn chỉ nhà một cô lời ông muốn lên thì chỉ đi ba tey ci seen scandale du jour de ce mardi 2 janvier 2024 fii ci VIP people euh, kii di maître El Hadj Diouf ginnaaw biñ ko dalalee fële ca jàkkaarloo moom ak bu Ndour nag tension bi xawoon na le élevé tuuti maanaam ñoom ñaar euh, euh, xawoon nañ xuloo ci seen biiri waxtaan ndax nee naa leen metre El Hadj moom fu mu toog rek moom daal mu ngi noonu daal lañ dem déglu li nga xamante ne wax na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ci présent Macky Sall ak ci moom jëm ci boppam.

nit ñi mel ne dañuy dañuy ay ay kii ay muus di xëm sama kaw. mais mais mais gisuñu xanaa boobu beneen Sénégal la. ma ma jox image. waaw waaw man image jor nga ñu jox image. yónnee ma ko met fi nga toog noonu yónnee ma ko. non mais s'il te plaît yónnee ma ko ay ful tooguñu ko. ah kay ay ful yu méttee méttee méttee xoolal. hystérique ay dundi dundi. non non non gisuñu benn junni. mais xam nga nu ñuy def le temps nga koy seet. après après bi la amee bi la amee. waaw léegi xoolal xam nga ñun gisuñu ko nañu ko jox. mais on va voir. mais xanaa yow rek yaa leen di gis. mais c'est rek moo lay ñaan may ma tuuti ma sànni ci kàddu <laughs> ah, ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo Bouba Ndour nee na ko yow amoo ay nit tax amoo ay nit kaw la eh, maître El Hadj Diouf nee na ko c'est pas vrai waxoo dëgg am na ay nit Bouba Ndour tonton Bouba Ndour bàyyil maître El Hadj Diouf am na ay nit am na ñuy daanu di xëm ndax moom bàyyil bu bàyyil yow tamit bàyyil suñu président bi bàyyil suñu candidat bi ah vraiment. maître El Hadj Diouf nag ginnaaw bi ko buuba waxee loolu tontu na waaye nak nee naa leen moom saa yu toogee rek il faut mu fàttali nit yi ni moom mooy maître El Hadj Diouf ndax nag moo ngi doon moo nekkoon avocat ki nga xamante ne mooy Adji ci digganteem ak Ousmane Sonko moom nag nee na Ousmane Sonko dafa tolloon foo xamante dafa ni ah, téeméeri Macky Sall mënaluñ ko dara muy nag Ousmane Sonko na foo xam ne na téeméeri Macky Sall mënaluñ ko dara fu ko neex dem lu ko neex wax lu ko neex def. tey anamu mu ngi Cap Manuel donc président Macky Sall muñ na lu nekk dégg na lu nekk ci gémmiñu Ousmane Sonko ci ñi ànd ak Ousmane Sonko ci xale yu ndaw ku nekk wax lu ko neex président Macky Sall muñ rek waaye tey yàlla atte na dëkk ndax atte bi at yàlla atte moo gën yi atte bi doomi aadama atte ndax nag tey Ousmane Sonko mu ngi fële ca prison di tappale di naan day grève de la faim dinaa dafa feebar day waaj a dee mu nekk ay tappale ay wax yu nen ay manipulation dara du ci dëgg mu nekk ay kàddu yoo xamante ne kii di maître El Hadji moo ko yëkkati.